bi mu demee Màkk maa yóbbu xaram ak enveloppe bi yóbbul Cheikh Diop xaram ak enveloppe am parce que sëñ Moustapha man la boole moom nag dañ moom dañ dañ ñu koo dénk ñemewuñ koo bàyyi jamais Serigne bu Serigne Abdoul Aziz Al Amin laa la wax de waxuma leneen de sama xarit la dàq naa ko dàq naa doomu Serigne bi dàq lépp ndénkaane la te bala ñoo xam ne ndénkaane la lëf xewoon ñu uuti ko kon booba la ñu xam nag ne ndénkaan ndénkaane kenn du ko laal ko dul borom ko laal ko borom loolu la Omar Cissé wax tabaski da ngay dimbali koo tane naka lay nekkee ci daayira bi di ñu guddi di ñu bëccëgal mu woo ma téléphone ne ma Iran da ngeen da ngeen may seetaan du ma tabaski ça veut li ma bokk ak yéen seetaan ma du seen cër loolu rek la bëgg a wax dama ne Tiwaawoon laay jooyee baat boobu bu ma ko fàttalikoo di jooy sànq moom ma bëggoon a dal mais ñun suñu jamono tey sëriñ boo topp faalewu la faalewu la ku fi ànd fi ne sax taalibe yi ñu ngi bëgg a yor jikko politicien da ànd ak sëriñ bi mu nelaw nga dem ànd ak keneen di dem ay tournée maa xamoon lii yeeg maay lijjanti lii yeeg maa daan dem ci tubaab yeeg maa daan dem ci américain eh, te ngeen maa yóbbuwaale ma mën koo lijjanti yow ka nga amoon nelaw na nelawal waaye nelawal waay yow nga ne xujji nii ki nga amoon dem na dund nga ci barkeem lu ne lekk ci barkeem lu ne sol mbubb mu rafet mu ne war oto bu ne jabar ji nga takk nobu la sëriñ bee tax mu nob la jox la xarit tabaski di la jox euh, suukar tabaxal la sa kër fu muy dem yóbbu la waay waay waay waay waay waay lii bu la doyul lu lay doy lu Youssou Ndour waxoon waaja ndawam sax su ma amoon avion xawma ma lan lan ne ko lii bu la doyul <laughs> lu lay doy mii lii nga am ko ci sëriñ bi bu la doy sëriñ ba nelaw ngay uuti koo ko defal ceem boo defee ne nit ñi naw nañ la yàlla naw la yonent bi naw la kilifa gi naw la mag ñi nawuñu la ñépp la jëpp ku seddu dangay gëmm gëmm looluy dëkk kon tabaski bu amul associé sa jenn xar déedéet mën nañ sa may sunu yaay mën nañ sa may sunu baay mën nga mën nga sa may sa jabar kaay ma wax la Ablaye su tabaski jotee bu sa jabar amul xar sa ñaari jabar yi leen xar waru de teel koo xam nag buñ dégg sama wax ji nag dama fi indil problème képp ku am jabar am na sax ko commencé yeewu da doon nelaw ndax daa am seet bu bees waaw képp am jabar tabaski warula ci sa jabar du sunna sunna la ci jabar mu utal boppam xar sunna la ci jëkkër mu utal boppam xar sunna la ci doom yi ñu wutal seen bopp euh, xar suñ ko mënul bàyyi boo amee na leen ci yéene waaleel su bàyyi amul jabar am na leen ci yéene waaleel loolu mooy mbir mi mais du sunna ci benn góor mu jëndal ko jabaram teel leen koo xam sunna la ci jigéen ñi ñépp sunna la ci góor ñi waa Ablaye ma laaj la benn laaj ko amul jabar ndax danga tabaski waaw célibataire bu jigéen waaw am na ñoo xam ne nag du nu tabaski lu dul bañ takkay jabar moo tax saan yàlla ma neex dangay indi xar mi yow sa jabar ne yow lii sarax la wala lan la yow xar mi nga yow dañ laa digal sarax xanaa ci biti waay yow te kat xar mi man tam même dana eh, eh. da ngay defee ni muus muñ xoj la mu yëngiiral na ak caayaan ba mu yëngiiral ak jiinam mais xujju xujjaaral tiim xam mbote mi amoon na génn góor ndeysaan dañ ko jox xarum tabaski <laughs> ma taxaw ci palanteer bi xar mi tëdd mu téye ci nopp yi kaj ko mu jaaxal mu daggal saaga ndey xar mi ma ne ko sëñ bi sama fenêtre ma ne ko xar mi defu la dara ki la ko jox defu la dara ndax ki la ko jox du sunna mu jox la ko sa moroom indi xar gi xar mi ci kër gi ñuy séddale nga yem ci bul saaga xar mi bul saaga sëriñ bi saagaal sa bopp ndey ba beneen alxames ci waxtu wi incha allah.